baabun li ab bunt la fil wasaaya ci ndonkaan ya wal mu dabbari ak ko ñu gannaawal wal mu kaata bi ak ko ñu jotoonteel wal mu ataqi ak ko ñu goreel wa ummil waladi ak ummil walad wal walaay ak kilifteef bunt bi yooyu la ci bëgg wax doon dénkaane ci boo fi jógee nàngam loolu mooy mbirum dénkaane maanaam sa alal nga wax ne su ma fi jógee ne ma ci defal nàngam mbaa ne ma ci joxal diw nàngam ku ñu gannaawal kii mu wax nag ak ku ñu jotoonteel ak ku ñu goreel ak umu walat ak kilifteef yëpp moom ci wàllu njaam la dellu ay jamono nag ñi ñu ko waxee woon mbirum njaam dafa siiwoon te bari àtte wuuteeg suñu jamono ji ñu toll waaye xeq dana yey xalaaman ci ka nga xam ne ilifoo ñeel na ko maa loo xam ne yiis yi dana dénkaane fii ci moom ay yoxidda mu xaroo te mooy mu waajal wasiyatahu ab dénkaaneem dafa wax ne dee nag moom day bette te tëkkuwul ci wér wala ñàkk wér tëkkuwul ci magew mbaa gone kon nag koo xam ne am nga loo bëgg a dénkaane ci sa alal dañuy sopp nga teel koo wax mbaa nga bind ko ba noppi sàkkal koy seere seere yi ne moom mënu cee ñàkk su fekkee bind nañ ko nga xam ne lii mbindum boppam waaye sàkkalu koy seere it mbindum bopp mënu doy noonu ndax mën naa am nga bind ko ba noppi bind ko dellu ci gannaaw kon nag day aajo bu ko bindee itam mu sàkkal koy seere li may nag daa wax ne daa wax ñu dégg mu ne leen li ngeen fekk ma bind ko rek wéyal leen ko su boobaa kon luñ fekk mu wéyal ko doon te sàkkalu ko woon ay seere it daañu ko wéyal xanaa rek ñu xamal la ne bu fekk ñu xas ne amee bor yoo xam ne moom bu fayee day jeexal mbaa sax du matal kon moom bu sañu dénkaane naa moo fi jógee nangam ci sa alal ndax xam nga alal ji moom ko bu fi jógee dañ koy fayee bor yi rek kon du sañu wax moo fi jógee nañ nañ ma ci joxal nangam diw mbaa nañ ma defal jàkk mbaa nañ ma saraxeel déedéet mbaa nañ ma ci nangamal ñu fàttali itam ne bu fekkee ne am na lu muy dénkaan loo xam ne su ko waxut séeréer ko borom da koy ñàkk ba faaw yu demee noonu yëpp dana aajowoo moom mu daal mu daal koy tey wax lépp ñu ko dénk mbaalu mu ameel kenn te nga xam ne su taxawul ci dénkaane ko seereloo ko rek bu mu jógee loolu borom da koy ñàkk wala na ko moytu na daal di gaaw daal koy bind seereloo ko ba bu fi jógee lépp leer wala wax na fii ci saraabu ni addisa nee na muy xaqu mri in muslimin له شيء ما يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده أعنانا عبد الله فكي أنا لم أنا دينكاني ورتفنا المكة يقولي تا دينكاني هنا كودن ساكتين سيري أنا نجري وحمل الحديث بعض العلماء على الصحيح والمريض لعدم الأمن من الموت فجأة dana leen wax ne loolu bu fekkee ne kooku am na lu muy dénkaane ku mën doon moo xam daa wér moo xam daa tawat ñoo ci yéen rek say boobu taxaw ci dénkaane la ndax diw moom daa métti nañ ko waxee woon léegi. wala wasiyatu déetub dénkaane li waari fan ñeel aji doon. li ci jublu mooy képp ku ko war a doon mel ni doomam mbaa soxnaam mbaa yaayam mbaa baayam du mën a wax ne su ma fi jógee nañ ma ko joxal ci saa alal nàngam ndax dañuy jàpp ne gannaaw ba suñu borom séddale alal yi ki fi bàyyi ko ne lañ miraas diina am nàngam diina am nàngam ba noppi la yàlla wax rek lañ mën a jàpp kon moom du sañ ne moo fi jógee nañ ma joxal saa yaay wala saa baay mbaa saa doom mbaa kenn ku ko war a doon loolu moom du ko sañ bu ko waxee biir wala saa yaa ndénkaane yi nag xaaru jotun aji génn lañ mën a sulus ci sulus ba nga xam ne warat bu def na delloo maa la nga xam ne saa la ëpp na xale yi ci sulus ba illaa an yu ji safoo ndara bi da ko wéyal alwarasat way doon ya te kat nee na li mu sañ wax naa moo fi jógee sa alal nañ ma ciy defal nàngam nit na ma defal nàngam ba nàngam buñ defee alalam ñetti xaaj ci benn xaaj ba lay sañ loolu waaye ñaari xaaj ñee moom ñi doon na ko moom bu bëggee weesu benn xaaj bi ñooy dañuy dañuy laaj ñi doon bu fekkee nangu la ñoo yoon loolu mooy waaye bu leen neexee ñu bañ ndax loolu ñoom seen àq ñoo ko moom wala si ko goreel nag pexe ñu fi ci jëmmam wala ci ràññeelam mu baddoom lu ñu jëkki la xale yi ci ndénkaane ya nee na bu fekkee ndénkaane yi wax kat yëpp xaju ci kon say bañu seet yi nga xam ne moo war a jiitu bokk na ci war a jiitu nag kon goreeloon ci ràññeel maanaam bu ne woon diw boo fi jógee nañ ma ko goreelal te bokk ci alalam mbaa diib ba fi jógee nañ ko ab jaam la boo xam nañ ko jënd goreelal moomu kon kooku lañ koy jiital ci ndénkaan yi dagam yëpp xaju ci wal mu dabbaru ko ñu gannaawal fi sixati ci wér mu baddaw nañu jëkki la alaamaa ci lépp loo xam ne fil maradi am na ci biir tawat ja min xitqin ci goreel waxee ni am ñu waxalaama ak ci la nga xam ne sax farata sàgganoon na fii ci moom mu ne sakaati ci asaka fa aw saate mu dénkaane bi ci moom fay na zaalika naka loolee mu baddaw nañu jëkki la fii sunu fii ci tulusam ba xalal wasaaya ci ndénkaane ya dafa wax ne bu fekkee dafa dafa am ab jaam bu mu gannaawaloon ci ba mu wér gannaawal mooy wax sab jaam ne ko su ma génnee àdduna gore nga loolu mooy gannaawal su fekkee am na comme ko waxan ci ba ko dara dalut gannaaw bi nag bu mu tawatee mu door am yu mu dénkaane wax ko nag ne mu fi jógee nag mu ko defal su boobaa kookee mu gannaawal nañ ca wér xam ne bu faatoo la war a gore moom moom lañ njëkk a génne ci ci sunus bi ah dëgg ñu mu wax yëpp xaju ci nañ njëkkee kooku nga xam ne moom la gannaawal nañ ca wér ba ko dara dalagut loolu seet nañu wax ci biir tawat ji loolu moom lay njëkki sax moom kooku yi mu gannaawal door caatig sax lu mel ne asaka ju waxan ne da koo sàggane génnewu ko ne nañu ko génneel sax ba tey jàmbur bi la ñuy jiital nagam dénkaane ya yëpp xaju ci wa mu dabbaru sixati ku ñu gannaawal ci wér mu ba dawoon ku ñu jëkki la xale yi ci moom loolu baamul rek waaye xam nga wax na ko léegi xam day faral di baamu rek moom wa isa daaxa ndem xat na attuma sa sulus ba taxaasa tam sompoo xam ne saa yaay ñoom dénkaane ya allati ya nga xam ne allati ya nga xam ne laa tabb di àdd dootul jëkkee fii xaw muy nekk ci ñoom nee na bu fekkee suuf yi mënta matale yi mu dénkaane woon nañ ko ci defal yi war a jëkkee moom des koy jëkkee bu yooyu jàllee na yi nga xam ne ñoo yemoo rek nag ëppante wuñ dara ji ñoom bu fekkee ñoom ñëpp mënuñoo génn dañ leen koy sompe mooy leen lu nekk ñu jógee ca la ca yell rek ndax ñoom ñëpp mënta mat kon sompoo lañ koy def wala rajo li ñeel na waa ji arrajo mu dellu xan wasiyati yi walis ab dénkaaneem mu xirqin moo xam goreel la waxee yi amul lu moom dafa wax ne nag nit mën naa dénkaane ba sàkkal koy seere ba noppi walbatiku ne génn naa ci walbatiku ne ñooñu man kat maa ngi ko waxoon waaye bàyyi naa ko ndax dénkaane bi naka mu war kon mën naa wax ba noppi walbatiku ne maa ko waxande waaye bàyyi naa ko te di biir gannaawal nag ki yàqoola mooy bu waxee rajul waaja li xam di ñu ñeel ab jaamam ne ko anta yow day mu dabbaroon ko ñu gannaawal nga aw anta wala yow xurun ngor nga xam du benn wala si gannaaw mil nii ci man sama laa yow joosu topp du daganati la fooy ñeel ko bay xoo ak jaayam wala fooy ñeel na ko xidmatu ak liggéeyam wala fooy ñeel na ko intisaabu maali yi nangu alalam maalam yam rabb li fi tawatu tawati faatu wala fooy ñeel na ko it wattu ak laalam inkaanat ndem nekk na amatan di jëbeer gannaawal moom moo xam dana ko anta mu dabbarun moo xam dana ko anta xorun xam bi nit nii nu mu ko ko waxee rek li ñu teg ci yolof daal mooy su ma fi jógee mooy su ma faatoo gore nga daal mooy max naa yoon saa yoo xeeb jaamam rek ne ko sa gore maa ngi ko àcc saak faatu su ma faatoo gore nga rek loolu mooy gannaawal bu ko xasee waxee jaamam nag bu ko mën a jaayati sañ na koo liggéeyloo nag moom sañ naa nangu itam alalam li fekk tawati tawati faatu loolu dana ko sañ bu dee jégéer sax mu jaam bu jigéen mën na koo soxna woo mooy mën na koo def ni soxna ci koy jotee moom rek mën na koo li ma jublu mën naa jotee moom ni ñuy jotee soxna wala yataw du sañ a laal nag al moo taq taka ñu goreel ilaa ajalin jëm ci àpp wala yadu bu waati du ko sañ a jaay bu ko see wax jàmm bi jigéen ne ko nag yow day buñ àggee dele sàngam dele sàngam buñ ci àggee mu goreel la kooku mooy ko goreel jëm àpp kooku moom mënu ko mënta jotee tey moom ni muy def soxna mënu koo jaay it wala mooy ñeel na ko ay yas tax di ma mën a génnoo ko wala moom ñal na ko it an yenta si mu nangu maalaxa alalam maalam yaqul bi fay jigéen al ajalu àpp wa nee na nag mën na koo liggéey loo moom mën naa nangu alalam moom kooku mu goreel jëm ci àpp li fekk àpp bi jëyewut wa isa maata ndem faatu na fal mu dabbaru ko ñu gannaawal mun sulu si day tukkee ci sulusam wala moo taq ko ñu goreel ilaa ajalu jëm ci àpp min ra simaali yi tukkee ci léppi alalam li nga wax capitalam waaye mooy léppi alalam rek ki nga xam ne moom la wax ne ko su ma deexee nga gore moom la koy tax a gore mooy waa ji bàyyi ab ceer ceer boo xam ne xajoo na ko mën na caa génn ci gàttal bu fekkoon ne tey bu waa ji faatoo daa ay borom far bu fayee day jeexal mbaa du matal sax kon jàmb du gore te amatu suñu sax far waaw day aajoo bu waa ji faatoo bu ñu seetee alalam seet ne moom ab suñu mën na caa génn ci alalam ndax amu ci borom mbaa yooyu su ko defee ne suñu suñu bu fekkee. jàmb xaj na ca nag waaw kay su boobaa la mu dabbar bi ki nga naawal ki di gore waaye bu dul loolu moom du gore niki ba amoon ay bor dañ koy fayee ci bor ya ci ngoyee jëm ci àpp nag moom day mel ne rek bu àpp ak see maanaam bu waa ji faatu woon moom ba day mel ne kooku bokkutul rek day mel ne bokkutul ci alalam rek kooku moom faaw mu goree ci gàttal léegi mu wax ne wal mu taqu ilaa ajal mu rasimaali yi loolu mooy moom faaw rek mu gore bu fekkoon ne ay borom bu fayee jeexal sax bu tee moom mu gore day jékki-jékki génn ci lépp alal ji mel ne mosu cee bokk rek wal mukaata bu kañ jotoonteel xabdun ab jaam la maa baq yàlla foofu des na xaalis war ko fi dara kuñ jotoonteel mooy ki nga xam ne ab sangam la ko wax ne ko jox ma nangam ci alal kaa goreel la loolu mooy jotoonte lu mu juboo rek baax na loolu nag nee na li fekk fayagut loola ba mat attib jaam lay amee bu fayee lépp rek lay door a gore wal kitaabatu njotoo jaa isatun aji dagan la xalaamaa ci kaw la nga xam ne radiyahu gërëm na ko alxabdi jaam ba usayib ak sang ba minal maali ci alal mën na jaman mbir mu lu ñu biddéel nga wax noonu rek waaye mu lu ñu àppal lañ ci jublu xalat moo xam néew na ak ñu jël biddi ya wala nga ne àpp ya aw kafirat wala ñu bari njotoo moom nee na jaam bi akub sangam ñoo koy defante lañ jubee ci alal ci jaam bi jox ko ko te gore loolu mooy alal yi njotoo ba boobaa na loolu dañ koy sàkkal ay délai ne ko bu buñ amee nangam nga joxe nangam buñ amee nangam joxe nangam ñett ñu ne ko weer wi na nga joxe nangam mbaa ñetti weer wi ne nangam mbaa at mooy nangam di topp ko noonu ba këram yi mat nag moo xam délai yu jege nañu mbaa xam délai yu sori nañu fa in xaja sa ndéem lott la raja amu dellu raqiqan di ab jaam raqiqan bi mu ngi ab jaam waxaala te dagan la foo ñeel sang bi maa la nga xam ne axafa jëloon na ko binoo ci moom nee na nag bu yàlla dogalee li ñu waxante woon jaam bi mënu ko kon nee na day delluwaat di jaam bu sotti te du tee sang bi moom lañ ko jot a jox ci alal lépp leew na ko ndax day mel ne alali jaam rek la doon jël kon dara nekku ca wala yoo xaj ji suufoo du ko lottuloo illa sultaan ndari àtte ko di jullit bi baax da talawo mi ci gannaaw mu ñëndi ko ba ifam tanaa andeem bañ na dina taa ji si ci lottal nee na nag bu fekkee ne yow mi borom jaam bi da nga ko wax ne ko yow kat tële nga li ñu waxante woon ci njotoo bi mënoo ko kon nag delluwaat nga di sama jaam te li nga joxoon lépp leew na ma mu ne la déedéet tëlewu ma mu ne kon nag ko yóbbu ci àttekat bi su demee ci àttekat ba tam am yaakaar ci ne moom it ko muñal dina mën a fay dana ko muñal su ko muñalee te mënta fay nag bu ngeen demee rek àttekat bi àtte ne ko yow kat ay léegi lott nga tële nga delluwaat nga di jaam na nga na nga ko doonee woon su boobaa du ko mën a sañ a bañ moom. wa kullu daati rahimin bépp jébbéer bi borom doom fa wala du xaa doomam bi mën a si latihaa nekk na ci wàccukaay yaayam moom mu kaatawatin ci kuñ jotoonteel aw mu dabbaratin wala kuñ gannaawal aw mu taqatin wala kuñ goreel ilaa ajalin jëm ci àpp aw marfuunatin wala kuñu tayle nee na jàmm bu jigéen bu ne nag bu amee doom doom ji da koy fekk ca àtte ba li ci bu dee jàmm bu jigéen buy jotoo bu amee doom ci jotoo ba dugg na ci jotoo ba mooy bis bu fayee lañ koy laaj bu goree rek doom yi day gorewaale bu dee jàmm bu jigéen bu gannaawal mu far am doom ci gannaawal ba ba tey doom ji dugg na ci gannaawal ba bu sang bi deexee mu gore moom jàmm bu jigéen bi doom ji gorewaale jàmm bu jigéen bu ko goreelee jëm ci dele bu ñu amee ci dele ba mu gore doom ji mu amoon ci biir boobu itam gore bu ñu taylee jàmm bu jigéen mu am doom doom ji duggaale na ci tayle ga muy rek wa waladu um lala di doomu um yolat min xëy di sëy bi bàyyi ko ci kurlu sang ba bi mën si la tixaa nekk na ci wàccukaayu yaayam umul yolat mooy jaam bu jigéen boo xam ne yaa ko moom waaye xas nga am ak moom doom kooku nag gannaaw bu doonee umul yolat bu amaatee beneen doom boo xam ne sang bi jure ko doom bu amaat gannaaw bu doonee umul yolat te sang bi jure ko kooku la ñuy wax ne mooy yaayit ñoo bokk àtte nga xam ne umul yolat moom li ñu ko bi waxee léegi mooy su sang bi deexee rek mu gore su boobaa nag doom ji mu amaat gannaaw bi mu doonee umu wala te sang bi jure ko it bis bu sang bi deexee ba muy goree moom yaay ji doom ji day gorewaale nde doom ji nga xam ne moom la am ak moom dëgg dëgg moom moom borom jaam bi doom ji mu am ak moom ngor lay doon ndax kenn mënta moom sa doom kenn mënta moom sa doom muy ëpp muy sab jaam mbaa sa yaay mbaa sa baay mbaa noonu kon mënees naa wax rek ne umu wala ñett doom rek la maanaam doom umu wala ñetti atti la am doom ji mu amoon njëkk muy doon umu wala maanaam doom ji mu amoon njëkk muy am ak doom sangam bi kooku moom jaam bu sotti la li nga sañ ci jaam lépp sañ nga woo ci ak doom ji mu amoon sang bi ci boppam kooku neen la doom ji gor la ndax kenn mënta moom sa doom mu ne muy sab jaam ak nag gannaaw bu mu amee moom doom ba nag mu amaat jeneen doom nag yoo xam ne sang bi amu ko amu ko moom amul sang bi keneen la ko amal li ci mos a feneen am ko fa kooku moom moog yaay ji mu wóol bi ñoo bokkaate bis bis bu sang bi faatoo rek yaay ji gore doom ji gore
ونيوي habdi ana li jaam loxoo ñeel la jaam maanaam jaam xam nga dañ koo moom ak la mu wër waaye du tee nag la mu wër ci àll mën na cay sopp ne ko mel ne moo ko moom daal moomu ko dëgg dëgg waaye dañu tey moom jaam bu góor bi su amoon jaam bu jigéen bu ko neexee daf ko ne soxna mooy lu jotee moom ni ñuy jotee soxna illaa ay yenn projet yoo dara bu ne koo nangu ab sayu du sang wa léegi nag su neexee ab sangam mu nangu alali jaam bi te xam nga moom jaam bi ab alalam fa in aataqahu ndeem góoreel na ko aw kaatabahu la mu jotante moom wala mu yastasni te setti wut maalahu alalam fa laysa lahu déet di ko ñeel ay yantasihahu mu nangu ko nee na nag soo amee sab jaam góoreel ko mbaa nga jotante moom ne ko jox ma nangam taa góoreel la te néewoo ko kat dama jëlal sa alal doole ci danga ko ne rek góoreel naa la te néewoo ko waaye daa jël sa alal mbaa nga ne ko soo ma joxee nangam lay ma goreel la waaye damay jëlal sa alal boole ci da nga ko rek boo ma joxee nangam ma goreel la yem ci ah loolu de kon nee na boo ko xasee goreel mbaa nga xas jotanteeg moom ba mu jox la li nga koy laaj du yóbbaale alalam boole ci waaye boo ko boo ko wax ne ko gannaaw ba daa téye sa alal nag sa alal moom du lem déedéet faaw da nga ko ci war a settiwaale ba da nga ko war a leeralaale boo jëflanteeg moom loolu.
lay sa loxoo déet di ko ñeel watu mukatabatihi laal gamu jotanteelam xam jaam bu jigéenam mi nga xam ne jaam bu jigéenam mi nga xam ne dina nang moom ci ñu jotoo maanaam ci mu jox ko nangam ci alal tam goreel ko kooku nee na du ko sañ a laalati du ko sañ a laalati mooy sañatu ko def ne soxna ndax mel ne kooku wéy naag boppam wama loo xam ne xadafa sosu na lil mukaatabi ñeel ko ñu jotanteel ku góor wal mukaatabati ak ku ñu jotanteel ku jigéen mën a la din ci doom daxala mu tàbbi maa xuma ànd ak ñoom ñaar fil kitaabati ci ñettoo ba waxata xatam mu gore bu xit xiima ci yenn gore dafa wax ne nag jaam bu góor bi bu dee jotoo wala jaam bu jigéen bi di jotoo bi ñettoo ba bu fekkee am na ca doom doom ja duggaale na ci ñettoo ba xam ne su bàyyi su bàyyi bi wala yaay ji fayee lañ koy laaj rek doom joojee mu ci am moom it dal lay bariwaale dal lay duggaale ci ñettoo ba dal lay goriwaale dal lay bariwaale wate jeesu dana dagan kitaabatul jamaahati jotoog mbooloo nee na bu fekkee da nga am ab lim ci ay jaam ni ki ñaar mbaalu ko ëpp mën ngaa waxante ñoom ci ne leen yéen ñëpp daal bu ma joxee nangam rek ma bari leen yéen ñëpp nga xam ne moom bu nga wax ñoom ñëpp ñoo koy bokk gàddu ci seen loos fexe ni ñu ko joxe nag suñu la ko joxee ñoom ñëpp daal di gore wala yow taqoona waaye defu leen goreel illaa bi adaa il jamiri ndara ci joxul boolem alal yotoo ga mu ne nag waaye kat danga dañoo teg alal jotoo ci seen bopp ñoom ñëpp ñu bokk ko bu la caa kenn mën a gore dañoo fay lépp lépp li fekk fay ñu lépp lépp rek kenn du ca mën a gore bu ñu fayee lépp lépp ñoom ñëpp door a gore nag walaysa lil mukaata bi dégg mu ñeel kon jotanteel xit kon goreel wala itlaafu maalihi du caa génn sànq alalam xataa yoo nga taqambatee goreeleef ko nee nag ab jaam bu tàmbalee jotee rek te fayagul lu mu koy laaj taxul nag mu sañ goreel moromam jaamam xam nga jaam alal rek la jaam mën na am jaam na moom waaw jaam mën na am jaam na moom waaye nag jaam su amul jaam na moom itam du mën a goreel kookee mën a goreel jaamam boobee li fekk ñu ko góor waaw kon nag xamal ne kon ab jaam bu tàmbalee jotoo rek fekk mu am jaam na moom du mën a goreel jaamam boobee mu sañ a sànq alalam itam li fekk fayagut li ñu koy laaj bu alal jotoo gi su ko su su demee ba gore nag xam ne nopp nag jotoo bi nag léegi na kon moomam boppam sañ naa goreel sañ naa sànq alalam wala yatazawwaju du sañ a takk soxna wala yusaafiru tey du sañ a tukki ak safar tukki ba albax yi dafay aju sori ba xëy na it mi say yi ci ñu di wéru sangam waaw nee na ki tàmbalee jotoo rek te li ñu fay matawut bu dee góor sañu la takk soxna bu dee jigéen sañu tawut jëkkër ba keroog muy noppi ci jotoo gi baabu sangam may ko ci ndigal ba tey dem du sañ a tukki tukki bu sori moom it du sañ a tukki tukki bu sori moom muy jotoo te amu ci ndigal wa isa maata ndem faatu na wala xaar te ñeel ko wala doon doom xaama mu taxaw ma xaama foo ci taxawaayam wa waddaati mu joox man maa ngi ci alalam ja maa la nga xam ne baq ya desoon na xale yi yor ko xaalan mbir mu ngi aji teew wóor sa te doon man ka nga xam ne dafa fa ànd ak moom ñaari diw ci ay doomam laa baqiya la des nee na bu fekkee ki doon jotoo daa farfaatu te mbir mi àggutoon kon nee na bu fekkee bàyyi na fa ci alal loo xam ne mënees na caa mottali alal njotoo gi kon ay doomam dañu daal jël ci alal seen bàyyi boobu faatu mottali alal njotoo gi su ko defee ñoom daal di gore waaye bëti ko maraas nag seen bàyyi bu fa def ci alal ji wala koy doon wa in lam yakun dem nekkut fi maana ci alal ja wa faawun ak matale fa inna wala dafa nekk doomam ya yasaana danañu liggéey fii ci moom wayu addaana te ñuy joox na doomam ay biddi wala nga ne ay àpp in kaw naa dem nekk nañu kii daaran di ay mag xanaa dafa kee jaam doon jotoo te bàyyi fi doom dafa teel a faatu noonu te alal njotoo na tëbutoon kon nee na bu fekkee lam fi bàyyi ci alal mënta fay njotoo gi mat kon bu fekkee doom yi mag na te ay doom yi mag la ñu jox ngeen téye alal ji seen bàyyi bàyyi di ci liggéey di mottali di seen bàyyi waroon a mottali ba keroog ñu mat wa in kaanu ndem nekk nañu siwaaran di ay gone wa laysa fi maali te dir ma nekk ci alal ja xabar mu jëm kenn biddiwa ba kenn àpp ya kon ilaa bu ñuy xiyam jëm na ci seen jot asan ya mën a liggéey raqoo mbir mu ñu doon ay jaam ba booba ñoom nag bu fekkee ne seen bàyyi ci misaal la doon jotoo faatu bàyyi leen fi ñoom doomam ñu ay gone mën nga liggéey ci alal jëm fi bàyyi kon lañu denc alal dina ko kupp teg ko fee ba gone yi doon mag mën cee liggéey bu gone nag mën cee liggéey daal di mottali li seen bàyyi dese woon door a gore nag door a miraas lu fa des waaye bu boobu nag ay jaam la ñu doon wa in lam yakun dem nekkut loo di ko ñëw wala ban boobu maa xoo ànd ak moom fii kitaabat yi ci njotoom nga wari fexoo kon doon ko sayiduhu sangam ba maanaam ki doon jotoo bu fekkee dafa faatu te bàyyi fi ku ko war a ومن أولد كجر الأمة جبير فله أن لكو أن يستمتع مبانه من هاجم في حياته جأوندم وتغدق تليف كجرال من رأس ماله كابتالم ويجلب ألالم بعد مماته جبنا أكفاتهم ñu bëgg ñëw ci àttab umu walat umu walat mooy sa jaam bu jigéen boo xam ne xas nga am ak moom doom dana jaam bu jigéen boo xasee am ak moom doom rek léegi sañatoo koo jaay sañatoo koo maye sañatoo koo faraxe mbaa leen léegi daal lu def mooy sañ nga ko bànneexoo ni ngay def léegi rek soxna li mu yaa ngi dund waaye bis boo génnee àdduna moom daal di ko def fa saasa danañu jékki-jékki génne ko ci àll ji bi yowutoo ko nga naawal bañ naa bu xajee ci suuf suñ baa dara moom dañuy jékki-jékki rek goreel ko mu génn mel ne bokkutoon ci sa àll rek mu daal di jeex moom dara bu ko tey gore wala la joosul dagan nag day xoo ak jaayam wala la xoo jëdd ko ñeelit xale yi xaa war umu wala boobu xidmatul ab liggéey bu am solo wala xalatum bi caagoon a njëriñ nee na bu fekkee ne sa jaam bu jigéen xas waa mag moom doom rek jeex na saña too koo jaay saña too koo maye mbaa saraxee te it saña too koo liggéey loo liggéey bu am solo liggéey bu sew rek bu tuuti saña too koo wut loo ci njëriñ xal la mooy lu nga ne ko da ngay paas moom di ma jox mbaa da ngay jaay bi ci di ma jox loolu yëpp saña too ko ci moom wala moo ñeel na ko nag jaay la ko loolee fi ñëw di xaa ci doomam ja mun xëy yu bàyyi ko ci kuru moom nee na nag doomam ja nga xam ne amu ko yow keneen la ko amal ma gannaaw ba mu doone umu wala daal la ko am waaye amu ko yow waaye jooju doom moom sañ nga ci loolu lépp maanaam sañ nga koo liggéeyloo sañ nga koo wurloo ci njëriñ waxoo moom doom jooju nag bi man si liti umu yi nekk na ci wàccukaay yaayam fi xitxi ci gore ga ñoo tax def na ko goreel bi xitxi yaa ci goreel yaay ji dafa wax ne nag doomam ji nga xam ne amuloo yow waaye gannaaw bi mu amee yow doom la ko am maanaam doom ji nga xam daal yow dugal ko waaye gannaaw bi mu amee yow doom loolu bëtu am ko kooku moom nee na moo yaay ji ñoo bokk àtte bis boo génnee àdduna rek yaay ji gore doom ji ñu gore waxaan ne ci leeral ne la doom ji nga am ak moom dëgg-dëgg moom gor la waxaan ne la it doom ja doom jam amoon na ko jëpp laata ngay am ak moom doom kooku jaam dëgg-dëgg la woon jaam bu sotti la ñett doom yooyu ñu ko tàqale woon démb wa kullu ma lépp loo xam ne asqatathu rafal na ko mimmaa ci la nga xam ne yow la mu def na xam ne annahu naka moom wala dun doom la fa ñu nekkoon moom umu wala din daal na doon umu wala bi ci loolee nee na kat sa jaam bu jigéen dañ bàyyi rek ba mu jur doom ji jooy doom ji lëng ñu door ne su umu wala la déedéet saa yoo xasee am ak moom loo xam ne ñi xam buñ ko xoolee ne lii dee doomu juróom tàmbali ne ki mu jékki-jékki am lu mu jur rek ñu xool ko ne ah lii de doom bi doon tàmbali kooku la jàppale ko ndalee doon si ubboola ak la waxoon ci ubboola rek moo ci daal di dox rawante nag ba ba mu am mu jur doom loolu doom ja faatu kooku xam ne ku ne xam ne loolu doom dëgg la waaye nag yeneen lu mel ay yëngu sax wax dëgër waxal nañu ko xool bu ñu ko xamee ne doom la woon rek daal doon àtte ubboolat wala yan faamu du ko jëriñ alxaslu dasal dasal baatu wolof la waaye mooy dasal mooy di jotee ak moom te bu dee jotee ak moom ba man yi mi maanaam li yàlla di bindee doomi aadama nar a génn mu daal di ko génne tur ko ci bitti dañ ko bàyyi mu jàll ci biir am na ñu way dasal loolu bu ko amee maanaam dafa amee jaam bu jigéen jaam bu jigéen ba am doom mu daal di ne ah man de jur ma ko mu ne ko lu tax mu ne man daanaa jotee ak moom yóbbu ko waaye su ma daa jotee ak moom ba ndoxum man yi mu nar a génn daa koy bàyyi daa koy génne pour ko ci bitti waaye daa ko bàyyi mu jàll ci moom kon nag lu ko ëmbal du man kon amul àtte umu wala ci man amut ak man doom su boobaa du nangu jooju wax ndegam nangu na ne moom daana jotee ak moom rek bu ko wóor ba xam man yi moom mën naa rëcc ci jàllam nit wala moo tax kon dañ koy àtte ne ko su umu wala la te sañoo koo bañ fa init daxaa ndem woote woon na ndem woote woon na istibraan ak laablu lam la ta boo xam ne laabut baax dawoo ci gannaawam lam yal xaq kon du yéeg bi ci moom maa la nga xam ne jaay dikk na mu wala di ci doom su fekkee daa wax ne nag doom ji muy jur moom sama jébbal bi kat man duma bàyyam juruma ko ñu ne ko lu tax mu ne man day dama ko seetlu woon ba wóor ma ne ëmbut te gannaaw baa ko seetloo ba xam ne ëmbut gannaaw bi jotewaatuma fi moom dara benn benn benn yoon kon xam naa ne feneen la ko ëmb waaye du ci man waaw su boobaa kon ñu nangu jooju wax jàpp ne kon wax na dëgg doom jooju juru ko kon jaam jaam bu jigéenam boobu bu umu walut wala yooyu su dagan xit ku man goreelu koo xam ne axaata peeg na mu war na addoona bor bi maali ci alalam maanaam koo xam ne nag daa bari bor ba nga xam ne bu fayee day jeexi tàkk mbaa sax ay borom du mat kooku bu amee jaam du ko sañ a goreel ndax day mel ne da ko moom ni ci faaxir waaye moomu ko borom bor yee ko moom da nga moom bu fayoon du matal mbaa matale ci la yem kon warta sañta goreel kenn wa man aataqa ku goreel bax da xabdi si lenn jaamam ustu timma kon motleef ko xale yi war ko nee na sa jaam nag boo goreelee lenn mel na nga ne sa jaam bi yow day goreel naa sa genn wàlla wala goreel naa sab kaar wala sab ceer kon woon day mot lépp ne la lépp gore na te doo ko sañ a bañ wa in kaana dem nekk na li xew yi di ñëw ku dul moom maxawu ànd ak moom fii ci jaam boobee shirikatun ak bokkaale xawuma kon xaymaaf xale yi war ko nasibu shirik yi ci rum aji bokkaaleem ja bi xiimati yi ci xaymaam yow ma yuqaama ci bis ba def na ko taxawal xale yi ci moom waxata xati mu gore nee na boo nee jaam bi yow day goreel naa sa genn wàll nga xam ne boo ko moom yow dong yoon day gore lépp ci forcé waaye tey nag moom ko yow dong daa am koo ko bokkal dañuy seet bu fekkee woomal nga ba nga xam ne mën ngaa remboursé ki nga ko bokkal wàllam yoon day yoon la waxoon mooy day àtte ni jaam bi lépp gor la yow nag nga remboursé ki nga ko bokkal wàllam nga xayma xayma njëgu jaam bi nam toll ñu seet genn wàll nga fay ko ki nga ko bokkaloon ko defee jaam moom lépp gore ndax soo ko moom mënoo doom lépp gore te mën ngaa remboursé ki nga ko bokkal fa in lam yoy jot ndem fekkee ful nag la foo ñeel ko maalul alal baqee kon des sax mu shériki ci rëb aju bokkaale ja raqiixan di ab jaam nee na bu ñu seetee nag moom mën laa remboursé kii wàllam kon dañuy wax ne kon lu metti metti kon sa genn wàll gi yow goreel rek mooy mën a gore genn wàll gi ci des di jaam kee moom ko xam ne kon jaam boobu day def kon bu xëyalee boppam tey boolu kii mu xëyal ka moom genn wàllam kon jaam bi moom genn wàllam keneen moom genn wàllam bu xëyalee boppam tey bu ëllëgee mu xëyal kee rek wa man mattala ku metiital bi xab di ci ab jaamam matlatan ak metiital bayanatan gu aji bir man xat xijaari xetin ci dagg ab cër wan yi ak nafaw moom xataxa kon mu gore xale yi war ko jaam kat yaa ko moom ñi waaye dund la neex def ca fekkee nga am sab jaam tax nga def ko lu jaadoot niki dagg ab cëram fekk ab cëram nga dagg ko ci moom mbaa nga tàpp ko mbaa yi demee noonu yoon da ko goreel ci force waaye yoon day jékki-jékki ne goreel na jaam boobu te doo ko sañ a bañ wa man malaka ku moom abawayhi yaari waajuram aw ahadan wala kenn min waladihi ci ay doomam aw waladi waladihi wala doomi doomam aw waladi banaatihi wala doomi ay doomu jigéen aw jaddahu wala maamu bu góor aw jaddatahu wala maamu mu jigéen aw axaahu wala mbokk mu góor li ummi ñëw wàllu ndey aw yabin wala ñëw wàllu baay aw yuxumaa wala ñeel yaari wàllu yépp jami xam boole seen xataxa kon mu gore xale yi war ko nee na daa am ñoo xam ne laa jege jege boo xam ne mënu leen a moom ñu ñu say jaam ndax xam nga ne bu jaam bu mu toroxte la kon nag waroo koo def wala sa ndey ak sa baay sa ndey ak sa baay moom boo ci boobu rek mu daldi ko refu saasa kenn ci say doomam noonu kenn ji sut ba tey ba tey noonu moo xam sut bàyyi ko doom bu góor la moo xam sut bàyyi ko doom bu jigéen la sa maam ju góor noonu sa maam ju jigéen noonu sa mbokk it noonu moo xam ko bokkal ndey dong la moo xam ko bokkal bàyyi dong la moo xam ko bokkal ndey bàyyi lu ci mën doon rek yo- yoon day jékki-jékki goreel ko doo ko mën a moom sax wa man aataqa ku goreel xaamilan aji ëmb kaana kon nekk jëniinu xaam bi umaram ma xorran di gor maa xaa ànd ak moom nee na boo goreelee jaam bu jigéen fekk mu ëmb waaw kon nee na ëmb boobee far na gorewaale mais bu goreelee jaam bu jigéen bi lu ëmboon tam fekk far na gorewaale benn yoon wala wana toq di fu goreel fi liqaabi ca baat ya wala ci jaam ya alwaajibati yi aji war man koo xam ne fii nekk na ci moom maanal maanaa min xitqin ci gore bi tëdd duurin ci ak gannaawal aw kitaabat wala njotoo aw xayri xima wala lu ñoom ñaar nee na bu la yoon ne goreel ab jaam nag mu waru gor nag doo sañ a goreel koo xam ne laal na ci ngor da ngay goreel jaam bu sotti waaye koo xam ne nga ko gannaawal ne ko bu ma dee nga gore mbaa yow tàmbali jotoo moom mu fay alal ba dañoo goreel leen bàyyi leen baa ñu ko goreel jëm àpp ñu ne lépp ñoo doo ci mën a goreel kenn ay goreel jaam bu sotti boo xam loolu dara dara ci ngor wala ahmaa du caag yoonu aju gumba wala xattax mu jéggi du caag yoon aju dog ak loxo aju dog ak loxo wa sib yi ak lu mu rong wa sib wa sib xuuxu ak lu mu rong moom wa sib bu xuuxu dafa wax ne itam jaam bi nga goreel bu la ko islaam waxee daa war a ñàkk sikk daa war a mucc ayib bu dee bu gumba mu doy bu dee bu loxoom dagg bu làggi mbaa bu loxoñ doy wala man bu caagéen boo xam ne xalaa xayril islaam nekk na ci wirul islaam ba tey nee na bu day ajoo mu ab julit da war a nekk raqabatu mu'mina bu nee fa taxriiru raqabatin mu'mina ab sart la ci kon boo ko dee jaam boo xam ne ab yéefar la bu doy
wala yajuusu du dagan it xussa bi goreeluk bone maanaam gone bu amee jaam du ko mën a goreel ndax xam nga suñu sàrfandiku ci alalam kon nag ki goreel moom faaw day nekk mu kàllax ba noppi am xel mu mat ci def ci alalam ak a dindi kon nag bu dee gone du mën a goreel ab jaamam wala mu walla du caa génn ko yilif alayhi ci moom kooku mu ngi firee baat bi nag moom daa wuteeg maanaam yi ndax boo déggee ko yilif daa mel ne ku nekkan jaam ñu def ko waaye almuwalla alayhi mooy assafihu assafihu ba ñuy firee aji desee di te moom it boo ko jàppee ku manqué xel juum assafihu moom ak almuwalla alayhi yi ñoo bokk maanaam mooy muusoor rek waaw muusoor koo xam ne daal xelam mën naa mat waaye boo amee alal yàq ko kooku la ñu wax assafihu aji desee di moom la jublu fii ci almuwalla alayhi xam nga ci lislaam lu waay bari bari at su fekkee boo yore alalam yàq ko islam du ko nangoo bàyyi alalam islam da koy boole koo xam ne mat nam xel mu waral ko alalam kon nag ku koo xam ne safiru la du du sañ a goreel ndax xam ne goreel génne alal la te ndegam yàqat la moosuur la ak goreelam mën naa bañ a tegu ci woon kon nag lu nangu mu goreel kon alhamdulilah xale yi jàppal ne fii moom mooy asafiru moo tax sa yaab moo fi mu ne wax naa wa asafiru allazi la yuxsinu at tasarrufa فلا يصح حتقه لو وقع إلا في أم ولده لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع وقليل الخدمة أم ولدم رك لمن غوريل خاني أم ولد موم دانكا بانخو ci la ko dese ci dund ak liggéey bu tuuti rek moo ko ci dese kooku moom ko goreelee moom safi bi mu daal di ay moom goreel nga wala laaw kilifteef ka li wen ñeel na ka nga xam ne aataqa goreel na nee na ku goreel ab jaam rek yaay moom kilifteef nga waaw kilifteef nag day ak jegeñaale day buum ngay jàppale diggante sang ba ak nu jëfoon te goreel ko bu xaw a demee ne góob askan xam ne su ko jaay mooy su ko maye bu ñu yaa ko goreel yaa ko yilif nag tey bu dee woon te amul kenn ko war a doon yaay doon léppam su fekkee am na ko war a doon waaye alalam du jeex ba tey yaay doonu des wa wala yajuusu dagan bay xoo ak jaayam wala xibatoo du ca yoon ak mayam waaye nag kilifteef moom dañ ko jàppale mu buumu jegeñaale goo xam ne mu ne su koy jaay nekk kaay ma jaay la saa kilifteef yi mbaa kaay ma may la ko de su ko jaay de su ko maye wa man aataqa ku goreelal abdan ab jaam xam ne jël na wees waaye fa walaaw kilifteef ba li rajula ñeel na waa joojee ne la boo nee nit goreelal naa la saa jaam bi jaam bi yow la yow laa ko goreelal kon kookee mooy woon kilifteef ba yow doo ko moom wala yekoonu du nekk awalaaw kilifteef ba li man ñeel ka nga xam ne aslama tuub na xalaa yedee ci jaar loxoom waxoo moom kilifteef ba yow muslima na ñeel li doon ñëpp nee na koo xam ne daa ñëwoon di tuub yem ci yow far tuub ci say loxo du tax nga woo kilifteefam du ñëpp ñoo woo kilifteefam ndax daa yem ci yow rek feeñal ak tuubam maanaam feeñal islaamam ci yow waaye bu daal lu wér kon nag kilifteefam du ñëpp ko moom faatu woon te it amoo ko war a doon alam day doon baytimaal la du ñëpp ko bu def bu def bu doon des itam ci gannaaw doon na it noonu wala uma kilifteefam la nga xam ne ah taqat goreel na ko almaratu jigéen ja la xaa ñeel na jigéen nee na jigéen nag lu mu goreel moo moom kilifteef ga ki jigéen bu amee jaam goreel ko moo moom kilifteef googee moom wa walaa moom ak kilifteef koo xam ak kilifteefu koo xam ne yu jaru def na ko noddi yu jaru def na ko noddeem nu wala din ci doom aw xam din wala jaam ataqatu bépp goreel na ko nee na ba tey bu fekkee jigéen dafa goreel ab jaam jaam ba am doom wala mu goreel ab jaam kookee goreelaat keneen yëpp moom jigéen ji moo moom kilifteef yooyu kon daal lu mu goreel moom ci boppam mbaa koo xam ne kum goreel la ko jur mbaa koo xam ne kum goreel la ko goreeloon yëpp daal jàppal ne jigéen jéem a wéyoo kilifteef waaye nag moom mënta doon kilifteef moom mu lay tëri sa doon maa la nga xam ne ah tax a goreel na ko xëy na waa kuréel moom mun abin ci bàyyi aw yëpp ne wala doom bu góor aw sama jën wala jëkkër aw xëy na wala kuréel moom li jigéen mënul nag mooy doon kilifteef ci keneen ne kii lu bàyyam goreeloon baalu doom ji góoram goreeloon baalu jëkkëram goreeloon ba keneen ci sa misaal yooyu ci sa yëf rek boo amoon jigéen joo bokkoon day bàyyi léegi fekk sa bàyyi génn na àdduna bàyyi fi kilifteef yow góor gi dong yaay moom kilifteef ga waaye jigéen jooju nga bokkoon day bàyyi ba moom dara ci kilifteef ga loolu nag mooy gàttal li nga daal di wax ne nag moom ci boppam bu goreeloon dara nag moom sa rakk jooju mbaa sama jooju tey jigéen la mu goreelal boppam mbaa kam goreel jur ko mbaa kam goreel goreel ko ok donc kooku kilifteef lay moom wa miraasu saayibati donab aji bay li jamaaxatil muslimina ñeel na mboolem jullit ñi ñeel na mboolem jullit ñi maanaam ci jamono jaahil yu njëkk lislaam buñ masaa di goreel ab jaam dañ ciy tudd baatu sayeba ma li nga wax sab jaam ne ko sayebtu ko boyal naa la jublu ci goreel naa la wala anta mu sayebun yow ko ñu boyal nga lañ ko daan wax njëkk lislaam bu islaam ñëwee nag aaye ko ba noppi teg ci alamaan boo xam ne booy goreel wax baat boobu rek ñu xañ la kilifteef ga soo dee goreel wax baat boobu ñu xañ la kilifteef di far ko yóbbu ci kilifteef jullit ñëpp nga xam ne kooku fi bàyyi ko woon te am alal ji ñu war a doon te amu ko war a doon yëpp la dem baytimaal waaye ñu ko goreeloon te tudd baat boobu bés lu moom la kilifteef gi wal walaa u kilifteef ga lil aqxad yi ñeel na ka gën a jege min xasabatil mayiti ci askanu néew ba wala nga ne ci géñam néew ba ak awal yi nga jëkk nee na kilifteef nag moom nañ koy doon ne wéta naag ni ñu doon ne jeneen alal ci miraas ndax ña nga xam ne ñoo gën a jege ka njëkk na moom kilifteef gi rek ñoom rek ñooy moom kilifteef ba ña nga xam ne ñoo gën a sori dal di ñàkk mu misaal la ko fa in taraka ndem bàyyi na ibnay ni ñaari doom ñu góor fa wadi saata ñu doon wala amawlan kilifteefug ba yàlla li abi ci maa ñeel seen baay suma maatu topp faatu ahaduhuma kenn ci ñaar doom ñu góor ñi wa taraka te mu bàyyi bani na ay doom ñu góor rajaxa kon dellu al walaaw kilifteef ga ilaa axi jëm ci mbokk mu góor ma duuna bani yi ci ludul doomu góor yi kookee la ngay seetlu ci misaal bu fekkoon ne ci misaal yaag sa mag ji da ngeen doon kilifteef ci seen baay yéen seen baay génn àdduna léegi léegi nag ngeen doon ci kilifteef bu yàlla dogalee kenn ci kenn ci yéen ñaar bàyyi koo fi rek ka fa def rek mooy moom lépp kilifteef gi waaye moom ma fa bàyyi ko du wax ne ay doomam nañ ñëw jël wàllu seen baay xam nga tey bu fekkoon ne tey yaag sa mbokk da ngeen doon kër ci seen baay ku ne amul xaaj tey bu yàlla dogaloon kenn ci yéen ñaar génn àdduna ay doomam ci misaal ñooy ñëw jël si wàllu ki génn àdduna ki ki nga ko soxla wàllam dong lay tey waaye du boole yaari waay du boole yaari wàll yëpp borom kilifteef nag moom ko faris dong mooy boole yaari yaari wàll yëpp maanaam mooy moom lépp kilifteef ga waaw loolu kon misaal mu leer la bu fekkoon ne daal léegi yow sa bopp rek doon nga ak kilifteef kenn ngeen bokk doon ci sa baay bi fi bàyyi ko yéen ñaar bu fa kenn bàyyi ko woon rek dafa des moom mooy far boole moom lépp kilifteef ga xam ne ko fa bàyyi ko ba amoon ay doom it du tax doom yooyu mën a jël wàllu seen baay te loolu nag bu fekkoon àlli àdduna dong la bu fa kenn koy jóge rek ay doom wala ña ko war doon daal di ko jël wàllam da koy da koy yelloo wa in maata ndem faatu na waaxidun kenn wa tarakate mu bàyyi wala dan benn doom rek wa maatate faatu axooxu bokkam wa tarakate moom mu bàyyi wala doon ñaari doom ba it fal walaaw kilifteef ga bay na salaasati nekk na diggante ñett ña at laasan mbir mu nuy ay suus mooy mbir mu nu- mbir mu nuy ñetti ceer ñetti xaaj ba tey gis nga dafa wóote nag alali àdduna li mu bëgg a wax mooy bu fekkoon ne yéen ñaar ñi nga xam ne ay doomi góor ngeen dollu kilifteef ci seen baay yéen ñëpp tey da ngeen fa jógee kenn nekkatu fi te xam nga ne yéen a seqoon kilifteef ku ne am genn wàll bu ngeen fi jógee yéen ñaar ne yow nga bàyyi benn doom dong sa mbokk moom bàyyi ñaari doom kon day mel ne yow mi nga xam ne yow benn doom benn doom bu góor rek nga bàyyi sa doom bu góor mu war a moom genn wàllu kilifteef gi ni nga ko moomee woon yow bu ko defee sa mbokk mi nga xam ne bàyyi na ñaari doom ñu góor ñaari doom ñu góor ñu seq genn wàll ga mooy seq genn wàll ga waaye loolu bu dee ci li kenn ko def noonu dañuy jàpp ne rek kilifteef ñetti xaaj la ñett ko seq rek ñoo xam ne ñoo yam ci ñoo bokk di sëcc ca ka ko njëkkoon a moom ci cosaan maanaam yow sa sa benn doom bi nga bàyyi ak ñaari doom ñi sa mbokk mi bàyyi yooyu yéen ñëpp ñoom ñëpp ñooy bokk rek kilifteef gi mais ne ko séddoo nga xaaj ci digg bi ku ne xaaj rek waaye yow mi nga xam ne si kenn dong nga bàyyi mu doom bu góor du tax ñu ne moom sa sa genn wàll moom am genn wàll ñaar ñoo yam di bokk genn genn wàll déedéet loolu itam gis nga ne foofu ni mu wutee